فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جانا فجأني بما به فجاناك باق مميت والبقاء جاناك فجأني بما به فجانا باقي مميت والبقاء جانا liggéey moom sant Sëriñ Tuubaa si rek te xam ne maam liggéey Sëriñ moom nii rek la si kaw si kanam lii nag maanaam ni ma ko yëge woon daaw daal ak ren ji wute na lool xëy na daaw ñoo woon loolu tawfeex sëriñ bi ñu ngi koy sant Sëriñ Tuubaa bu wér-wér ndax it maa ngi dégg ñu ne daaw la nit ñi gënoon a néew waaye dafa mel la gën a tawfeexe te ku dégg soññee bi war nga mën a am pëstéef ngir sëñ Tuubaa nga jaayante ak sëriñ bi ñëw. ndax li tax ñu ñëw ci tool yi liggéeyal sëñ Tuubaa rek dañ koy liggéeyal. tey am mbégte lool ci woo gi mun woo di sant bu baax ci kattan gi ni suñu borom kattanal ba nu wuyu si ko donc ci sant sëñ Tuubaa baax tey sant sëñ Abdou Lahad baax a baax baax ndax nun de ay murit lanu te suñu yaakaar ji yëpp ci sëñ Abdou Lahad rek la nekk ginnaaw sëñ Abdou Lahad dong lanu yaakaar nag. saa su wootee rek lépp lu ñu jàppoon dañu koy bàyyi ñëw wuyu si nekk ci liggéey bi ba keroog mu ni ñaanal ñu door a yeewi ko waat. kon nag diggante boobu moom ndigal rek lañ ciy xaar moo tax ñu ñëw fi ndigal lañ fi indi it moo ñu fi ba. sëriñ bi sant la nga jëf rek dafa am solo daal moo tax noonu ciy santaat yàlla bu baax di ci sant sëriñ Touba di sant seex si eh, seex eh, eh, seex Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem njabatu Cheikh Abdoul Ahad gi yëpp. waaw noonu daal sant nañ ndax biñ ko joxee suñu am sa suñu am sa woo ci suñu ëpp lakkaram suñu ëpp si woon ci booba danoo sant yàlla ci lépp nag di góorgóor rek tey ñaan nag di yàgg rek fu mu nee bisimilaay nag mu ne bisimilaay rek muy guddi bëccëg suba ngoon moo tax fu mu yëngoo amatuñu ci sago amatuñu ci dal lu dul buñ ko mën a na dal di taxañ lépp liggéeyandoo ko ci benn bis yéen ko def loolu rek moo waral ñu bàyyi suñu lépp ñëwul si liggéey bi te buñ fi doon toog fii ba at mi jël si waat déwén ci bis bi itam bu ñu sëriñ bi ñaan doon doon wàññeeku waat mukk kon loolu rek mooy liggéey bi. soñu mbokk taalibe rek ne lii lépp rek sunum njariñ la sëriñ bi moom defalu ko kenn ñun la koy defal ndax mën noo xëyal dara dara loo xamante ne lu mën a dimbali sëriñ bi loolu ñëw ci tool yi liggéey jaamu yàlla laaj ndax ginnaaw moom tool yi la ñu fàqal ñu mën ci liggéey sëriñ Tuubaa di ci ñax saa su ne te defuñu ko kenn ku doon addi Serigne Touba lii moom dama ci woo mbokk taalibe yëpp kenn ku ci ne na nga xam ni li ngay def defaloo ko kenn sa bopp dong nga ko defal. kenn a jëfaalir kenn lu waaye jëfit yaay borom waaw man xam nga si yàlla nag kon bu suñu Abdoulaye na ni mag googee de sànni naa doon bu a borom fukki at ak juróom danaa ko def ngir jëm sëñ Tuubaa ak Cheikh Abdou day mel ne kon sant sëñ Tuubaa képp war te liggéey bii ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa it day warteef fi noonu ndax ndax kenn ku ci nekk ci ñun boo seetee ci zahir sëñ Tuubaa defal na la loo xamante si war naa tax fu nu wootee ngir sëñ Tuubaa nga bàyyi sa lépp ngir sëñ Tuubaa ci zahir rek rawatina nag ki nga xam ne dafa dox suñu diggante war a noo ngi sant say gërëm sëñ Tuubaa nag moo fi ne daal néew fi ndax li ñuy liggéey ci mbedd yeeg li yëpp dara nekku fi fii la daal li fi ne mooy jaamu yàlla ak maandu nekk ci lu baax fàtte lu bon te liggéey sëñ bi ku ko deful rek xamoo ci loo ne ndax jamono ji jeex na. murid yëpp mën nañoo seere ne fa sëñ bi la bàyyi woon liggéey bi sëñ Sidi yokk na ko yokk ko yokk ba murid yëpp mën koo seere yokk na liggéey bu wér-wér tey tool yi ku ko gis daaw gis ko daaw jéeg gis ko ren xam ne am na wuute am na soppiku te it lépp loo xamante ne si sëñ bi la daan na ko ci def sëñ Sidi yokk na ko yokk na ko ba ñëpp mën koo seere tey li nga xamante si moo nu gën a moo nu gën a euh, daane ñu ngi seen siiti mooy mooy mooy nituk adduna yóbbu yóbbu ko nituk adduna yóbbu seen siiti te ku ne xam ne liggéey sëñ Tuubaa bi kenn mënu ko ci rawatina nag buntam ci sëñ Tuubaa muy sëñ Abdou Lahad Mbacke ndax sëñ Abdou Lahad da nettali nañ ci ak dundam ne daan na def nii baara ñu ngi daan def di yéeg ci camion yi di jënd ay dàmbay géej ji dem di ko jaay ngir lan bëgg koo joxe ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi ngir di wane ne liggéey sëñ Tuubaa kenn wër ko ca ëpp doole ba pare daan ko boole ak mbayam heure bu mbay mu noppee mu jébbal ko sëñ Tuubaa sëñ Abdou Lahad de daan na jëf-jëf ju mel noonu ci toolu sëñ Tuubaa bi te bu ko neexoon toog rek ne man doomi sëñ Tuubaa laa te kon su day daal di mat sëkk waaye day war ne liggéeyal sëñ Tuubaa ñëpp la war ndax sëñ Tuubaa nee na moom bu ko sañoon day xaaj jëmmam ji ñaar jën jëmm di liggéeyal morom ja ngir lan xam maanaam liggéeyal sëñ njariñ li ci nekk ba Sëriñ Saliou Mbacke mu baax a waxoon ne liggéeyal sëñ Tuubaa du ci yërëm benn murit ndax nee daa xam njariñ la ko cay fekk kon ñoo sant bu baax a baax a baax a baax sëñ Fallou tey gërëm sëñ Siidi it suñu xol seet na ci moom lool bu ko suñu laa joxoon liggéey ba dara échec ci rek su boobaa euh, maanaam maanaam suñu naqar lay doon ñun muridi bu doon liggéey bi dara dajee gannaaw kon sunu naqar lay doon ñun muridi ndax ñun amuñ ku lu sëñ Abdou Lahad waaye nag fa mu ko yóbbu neex nañu lool sax dal na suñu xel waaye nag nan nan ñaan yàlla rek Cheikh Sidi yàgg fi di wér ak sëñ Amsatou Mbacke ak mboolem jaboot si kër Cheikh Abdou Lahad adiyati muxjilatun kullal malik kaana munasiyan waxsaahu lmalik maxatawaaju nasaar allahu liya bi laa ilaha illa allahu addi sëñ Tuubaa yàlla suñu borom taxawu barke Sey Ibra maam comédien yi may def nag damay bëgg maanaam nit ñi euh, di di euh, di di di xoromu di ree ndax mbir daa war a ree waaw. <laughs> kon kon jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah.